suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam ne defal loo xam ne keneen fekku ko ca moom yàlla mooy amal gim ñu amal ame ñu ba pare di doxal suñu mbir te képp kum bind moo la amal amee la di doxal sa mbir te kenn fekku ko ca yëgeeg boobu nag moo tax ñu takk baat pour sant subhaanahu wa sant yàlla. ndax dañoo wax ne mboolem xeetu cant yi rek xeetu xeetu jaamu yàlla yi cant ci gën a kawe waaye cant ci wax ak cant ci xam nekkul benn ñun ne donte ne dinañ ko feeñal ci alhamdulilahi rabil alamina yëg nañ jëmi sant yàlla ji yàlla dugal ba nga xam ne ci la waxee ne lu mu bind Muhammad moo tax di wala xad karam naa bani aadama yëg googu ñu ko yëg ci biir kër Cheikh Moussa moo tax ñuy sant yàlla ndax damay dégg Cheikh Moussa radiyallahu taala anhu muy wax ne dafa jàng Serigne Touba bind na képp ku yàlla jox xam-xam nga nëbb ko bañ koo wax jaami yàlla yi bala ngay dee yàlla nattu la mu ne xam-xam bii yàlla xamal ma bala ma ca yàlla nattu ma xamal ko jaami yàlla yi dégg nañ ci mag ñi ne daana takk sareet wala mu war fas di wër ci dëkk yi di leen jottali kàddoog maarifatu billaahi muy xam yàlla ak xàgg ci yàlla ak gis yàlla dem na ci ba di luy oto bi ko fay nangam journée teg rajo dëkk mu dem taxaw ci pénc ma ne nañ ko woolal nit ñi mu waxtaan ak ñoom ci lislaam te lislaam comme ni ko sang bi waxe ak sariatu bokkul lislaam Cheikh Moussa nee na mooy laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy defee sariatul islam nag nga xam ne mooy fiq ak la ci aju yëpp moom it diin la goo xam ne dafa am lu ko tax jóg nit ñi nag dañ leen a boole ñoom ñaar te bokkuñu waaye nag ñooy ànd su ko defee su sang bi joxee ay kàddu ne thème boobu lañ joxe pour ñu waxtaan ci dafay mel ni loolu rek moo tax na ñëw Cheikh Moussa Cissé radiyallahu anhu ndax ginnaaw yonent bi kenn ku fi nekk kenn ku fi teewaat ak daraja joo mën a am dañuy wax ne maqaamaay mujjadit ci nga teew da ngay yeesal waaye andi woo sa yëfu bopp sa soow yeesal nag lislaam mooy yeesal baatu laa ilaha illallah ci xolu jaam yi seen pas-pas yees ndax nit ki li mu fas te du loolu su ko mënee booleel lu ko mën a booleel di ko jëfandikoo la muy jëf baax na mais moom baaxagul te def lu baax am na solo lool waaye baax ba pare door a def lu baax moo ko ëpp solo nit bu baaxul mënta def lu baax moo tax lu baax li ñu yonent bi andi lépp ci wàllu fiq nit ñaa koy jëfandikoo suba ak ngoon te lim leen mën mënuñu koo def lim leen tere mënuñu koo bàyyi te mbooleem lu yonent bi andi lu baax la waaye nit ñi dañoo jiital a jàkka bàyyi école ginnaaw te loolu boo ko defee rek mbir am kon nag yàgg nañ ko fee tànt di fi yëkkati baatu laa ilaha illallah di fi kennal yàlla waaye nag di fi di fi wax xakk saa daraja nga xam ne moom la yàlla jox ak yonentam ak mbaax gi nga xam ne moom lañu ñu nit yàlla yi jottali gis nga loolu yëpp nekkul loolu nag moo jaxase pitaal yi ba waa kër Cheikh Moussa saa yu ñu dikkee yëkkati yàlla ak feeñal ko nit ñëpp kenn ku ci nekk gis ne dañoo weddi kilifaam wala dañ koo xeeb loolu nag la muy tekki mooy dañoo jël kilifa yi teg leen palaasu yàlla te maam Moussa Ka dafa wax ne xam yàlla xam fa mu teg yonent ba war na ku ne ku leen xamut yàlla buñ xam kooku yàlla kon xam yàlla xam fa mu teg ab yonentam Cheikh Moussa nag gis nga ko ndekete yonent bi dafa am fuñ ko teg waaye du yàlla ginnaaw moo dut yàlla nag ku kaala sa mbir na yàlla nga mbër na yàlla la waxoo lu am yàlla moo di yàlla ku dut yàlla jaam nga te dafa bind jaam ñi pour ñu jaamu la du ñuy jaamu ma waaye nit mën na jëf lu mu xamul gis nga yàlla xadis bii nga xam ne nii idi jaay dañ koy contour naan loolu wér na wérul موي فاعرفوني قبل ان تعبدوني فان لم يعرفوني فكيف تعبدوني حديث قرسي نيكون حديث بو خا دي نان ديو كو سولو ولا جومنا ولا ماتنا دنا جبريل امو تي بلاص تي يالا لا جوغي رك واتي يرنتي يالما حديث قرسي القران لي موي فور فور دا فا جوغي جبريل lan moo tax nag ñoom ñu bëgg a jël tey bëgg a contour tarixa ak wasila tax ñu ne addis boobu wérul ma ne addis boobu su fekkante ne nii wérul sax yàlla bu la bindee xool ba bindam jeex mu ne yaa ko ci gënal mboolem xeetu teraanga mu jagleel ko nit luy tedd nit amul waaye lu fi nekk ci géej ak jéer yi lu nit di tedd la waaye lu yàlla bind muy tedd nit amul ku la defal loolu te dara tax mu bind la ngeen nga jaam mu ne bala ngaa jaamu da maa xam ngay sikki sàkk xam yàlla yow seetaatal sa bopp moo tax senegal dañuy wooye nit ñi ay borom xam-xam waaye xam-xam dafa dafa wuute xam-xam dafa am saayir am baatin nit ñi waxtaan nag ci saayir bi rek lañ ne waaye baatin moo mën a taxawal saayir saayir balaa mën a taxaw am baatin xam-xamu xam yàlla àgg ci sa borom mooy lislaam ku mu tàbbiwut ci yow amugoo lislaam man nga am sariatu nag man nga am sariatu waaye xatta nañu xam ne li nga xam ne nii moom la ak saa Cheikh Moussa ne moom lay yeesal moom sax dafa wax dafa wax loo xam ne nit ñi war nañ cee bàyyi xel gis nga Cheikh Moussa la déglu ay waxam Serigne Touba bi mu dikkee dana day yeesal lislaam am déet baxda salaatin la tasul fil haali wa sabi udool wa biya jadida sabil bila aydan aw alam bi ma jullee ci yàlla julli goo xam ne amul sëlmal ak saa nee na dina yeesal lislaam ci lu dul noonu du aye du noonu kon nit ñi war nañoo laaj kon lan mooy lislaam ndax Sëriñ Tuubaa bi muy feeñ ci gàttal def bi li mu fi def di xusoosiyee suñu borom boo xam ne suñu borom moo ñu ko jagleel pour mu xetti li jaam yi jëli leen ci ay nax na yóbbu leen ci dëgg njub mbooleem lu sariya digle nit ñi ñoo ngi koy def jàkka yaa ngi fi jumaa fi te bu muy feeñee ne lislaam gàddaay na ba soowu jant jigéen ñi ak góor ñi jaxasoo fépp mel ni làmbaay ma ne jaxasoo boobu jigéen ñi góor ñi doon jaxasoo fépp mel ni làmbaay Cheikh Moussa ñëwutoon mbir am xam nga lu tax kee dem ne l'islam lay yeesal loolu Cheikh Moussa ko xam nga lu tax jaxasoo boobu amoon ci góor ak jigéen ñi ak toq si ngalam yi ak mbambax mi Sëriñ Tuubaa dikk fekk nit ñi nekk ci mu ne l'islam gàddaay na loolu moo ñëwaat ndaje yëpp xool góor ñi jigéen ñi dañuy jaxasoo di tëgg ak fecc di woy di taggante bu bët set ni nit te Cheikh Moussa daf ñoo waxal ne lu am téeméeri at ma da yeesal te borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne bopp téeméeri at bu ne yàlla day wàcce xut bu saman mu yeesal li nga xam ne moom la yonent bi andi woon loolu moom ñëpp d'accord nañ ci mu nañu lu am téeméeri at rek ma da yeesal kon yoon bi dinaa ko yeesal ba yaakaar ne maa mu feeñ ci tàllal benn baat muy baatu laa ilaha illallah moom laa woote amul yokk amul wàññi ku yokk yaa yokk ku wa wàññi yaa wàññi yàlla laa di wane ci tur ci maqaama ci tur ci mero ci maqaama waaye amul leneen lu muy joxe lu dul laa ilaha mboolem lu ñuy jëfandikoo ci sariatul islam ba ñuy dem ci Cheikh Moussa Cissé di ko wuy ji radiyallahu anhu mënoon nañ ko kon woowee wuñu loolu dañoo xamoon nu ñuy jaamoo yàlla ba di ko def. te fekk xamuñu yàlla te jaamu yàlla mënta baax te xam yàlla amul ñu def ci Seex Musaa toppee lan xam yàlla mu xamal ñu yàlla ñu mën a jaamu yàlla ci biir ak ci biti kon booy xool yoonu murit mooy yoonu lislaam ndax moom lislaam la du yeesal waaye bi mu dikkee moom xaadim rasul borom xam-xam yëpp a ngi déglu mu ne day yeesal lislaam fekk fi ay nit ñu jàng fekk fi ñoo xam ne ñoo waajuram ñoo nekkoon fekk fi ñoo xam ne sax ci seen daara jaar na ca mu ñëw ne day yeesal lislaam taxaw yëkkati benn xam-xam boo xam ne lu nekk mu daj ko ci lu nekk ñu jéemal ko ko sottiwul ba mu taal fi taal boo xam ne nee na fekk képp ku xool gis ko ba péccum yàlla yokkut julli wàññiwu ko asaka niñ koy defee sensé wu ko dem màkk sax faru ko def saa kon maa huwa l'islam l'islam bi sëriñ doon Touba doon yeesal ci soowu jant lan la lan la mooy laa ilaha illallah boo xam ne ni ko waxee ci sa làmmiñ sa nopp di ko dégg sa xel ak saa di ko xam sa bët da ko war a gis sa xol da ko war a dund waaye wax ji bu yemee ci làmmiñ rek ñu bàyyi ko amul solo xoolal li ñuy tànk di wax laa ilaha illallah ci ci ci jàkka yeeg jumaa yeeg cant yi waaye buñ ko waxee ba pare buñ jógee jëf-jëflante nga xam ne liñ doon wax tàbbiwul ci ñoom laa ilaha illallah yàlla rek a fi ba pare nit ñi nekki nit ñu nekki ci yàqalante ci xiñaanante ci soxorante ci jigéen yi ci marché yeeg fépp li may wax nii mu ngi fa parce que ñun ci Marseille lañ nekk kon ana tawhid bi nga xam ne yëg nañ ne yàlla mu ngi fi te laa hawla wala quwwata illa bihi kon ndekete li Cheikh Moussa woote muy tawhidul ilahiya muy wéetal yàlla te doo ko bokkaale kenn ba pare nag jaamu yàlla ci sunna yonent bi loolee mooy li war waaye nit ñi dañoo bëgg a jël sunna yonent bi jiital ko betal farata ginnaaw te mosoo dégg borom xam-xam buy waarate ba sunna yonent bi farata yàlla dañuy wax farata yàlla ak sunna yonent bi sunna du jiitu farata te turu farata wi mooy la ilaha illallah te tur woowu am na jëmm am na melo am na maqaama muy laa ilaha illallah parce que lu julli foor foor aj màkkaak asakaak lépp lu mu baax baax nit bu koy def te seedewut saxaadatu bi kalimatu saadata l'islam sero la suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon la dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaaritoon jar doon